Thank you. ana Sofi Gambian Talents yi ana ñoo nga xamante ne saa yuñ génnee rek fu ñu munti fële ñuy seetaan li nga xamante ne mooy Gambian Talents ah, wax nañ leen ne ñun dañuy dugg fu kenn dugut dañuy fële fu kenn fëlewut ah, ñu nekk Gambian Talents di promote talents bi nga xamante ne moom lañ am biir Gambia ndax gëm naa ne Gambia we are full of talents dañ over laa am talents moo tax tey dafuñ dara lu du doxantu ñëw fii nga xamante ne mooy Banjul the capital city ah, di the city of the smiling coast of the ñëw fii tey nga xamante ne fii nga xamante ne mooy Atlantic Hotel du ñëw wuyu si ñi nga xamante ne ñooy J Live Music ku ne J Live Music sa xel bi dem si ki nga xamante ne mooy Sol Sow ah, suñ ne J Live xel dem si ki nga xamante ne mooy Def Ndaw suñ ne Sol Sow sa xel dem si artistes yu bëri yi nga xamante ne ñu ngi biir Gambia ndax si moom la ñu jaar fa tabarikàllaa macha allah mu liggéey ak ñoom ah, moo taxit tey bu ma ñëwee taseeg ñi nga xamante ne ñu ngi ron ki nga xamante ne mooy Sol Sow moo tax duma ma def dara lu du daagoog ñoom ah, du ma ko mun a wax du ma leen wax ku mu doon dinaa leen bàyyi mu nuyoo nuyu faramaareen nuyu ngéwél nuyu yéen ma xam naka la yi di leen ko dañoo am dalal la borom. Yeah, it is a combination of government and people working together, unison and harmony that will lead us achieve the progress that we all desire. We must stand together as one people with one goal and move forward as one nation. Hey yo Gambia, what's up? It's your boy Chibay of Allied Movement bu of Arts ñu ngi Gam Talent Birbanjul. Banjul so welcome to the show. ñoo ko déggandoor lii dooren bi rek la lii dooren bi rek la lii du dara lii staatin bi rek la mm-hmm. tey nawet bi dafa war a nekk nawet bi nga xamante ne yéen a ma gën a xam xam nga Fatou Samba dafay taxaw na leen ah, dafay mel ni téeméeri yóbbu ci benn butéel wala mu ne la janax day bëri baax mos day mën a wax ñeew tey nag leneen lay doon waa Banjul ñoo leen ah, duñ def dara lu du ma laaj la lu waral sa teewaay fii tey waaw asalaamaaleykum di nuyoo waat for the last time xama for the second time anyway like dañu ñëw tonight soo bàyyi xel tey sin boss sin brother Sol Sow moo ootee waa Banjul ñu amee beneen team boo xamante ne ñu ko ooyee waa Banjul ñoo def ndam si first division bi mun naa laa Banjul yëpp Gambie yëpp la gars yi duma from Banjul to Koyena soo ñu war a am tey bagage yoo xamante ne dañ leen a ñu ñun artistes yi artistes yi Banjul ak Gambian seen seen boppa for the first time xam nga rek ñu célébrer ko victory celebration la celebration champion champion celebration la tey tonight moo waral lii tey moo ñu isi fii tey so moo waral tey Elite Movement bi ànd ak waa Banjul ànd ak see Jolof Art ànd ak see pour toj Atlantic Hotel tey tonight duñ ko toj yem si dañ koy xotti dagatee ko loolu la ñuy def euh, ñu bëggoon a xam euh, since li li nga xamante ne mooy euh, Jolof Art su ñuy def nii ñaata at tey ñu ngi koy def so ñu mënee wax. Uh, Jolof arts yàgg na def um, music so by hell ñoom depuis bu ñëw nekk kii because of so by hell one of the biggest label in the Gambia mooy te Jollof Arts, soo bàyyi xel ñoom in history like produce na nine albums Jollof Arts, mu ngi job jobana Maslabi Salamji, and and Ed babu Jalimadi and any other artists. maybe by that time in the history of brief of Jollof Arts. ndax foog naa bii ma the first time like ñuy celebrate lu mel because of team boo xamante ne dafa yaa mu ngi egg for the first division understand nga so ñoom dañ yaakaar nekkoon si seconde division di di góorgóorlu ba yàlla def may leen dam ñu nekk di champions of of um, xam nga first division exactly through the sport so moo waral lii tey so lii foog naa mu ngi soog a xapul mbir Banjul ñu ñoo amoon show bu yàggul on the eight kaay fii concert ak Dave Ndaw Elhaj Moufen Dave Ndaw so ñu ñëwaat foog naa loolu mu ngi nekkoon on the eight ñu ñëwaat tey victory celebration that's just waaw loolu mooy the concept of the event tey tey lan la sa ah, fans yi lan lañ nar a expect si yow tey waaw fans yi yëpp soo bàyyee xel ñoom sax ñoom dinañ leen jox ñaari xel because of um, dañ leen ko joxoon dañ leen dañ ñëwoon on the ñu jox leen lu saf lu ne moo tax gars yi ñëw toog seen 300 dollars si 200 dollars si ticket so ñu ngi expect leneen lu ko raw te ñun tamit mooy loolu pare neen pour jox leen ko soo bàyyi xel Instagram ñun man last time maa ngi post cheaper yi Elite Movement suma Instagram bi maa ngi post about uh, seen rehearse bi tey foog naa loolu tamit inspiré na ñu bari tax na ñu bari gën a mun a ñëw so show bi tey dañ a ñëw pour daaneel Atlantic Hotel tey tamit waan guddi bi waaw pour daaneel Atlantique Hotel ñoo ko déggandoor mm-hmm. waaye balaa Atlantique Hotel di daanu ñun nga ameen talent dinañ rocceeku daw demee côté ndax bu naree daanu suñu kanam rek ñeneen ñi dañuy des gannaaw te ñii dañoo dem ba pare ñeneen ñi dañu bëgg dem <laughs> yéen a ma gën a xam ah ban dée rek ngeen nekk artiste nga xamante ne yéen a ngi nekk Banjul ah, ñu bëri di wax naan waa Banjul da ngeen fonk li nga xamante ne mooy Kumba Banjul ak Samba Banjul mm-hmm. ñu bëggoon nga wax ñu yow war a jote ko ndaal waaw Kumba Banjul Samba Banjul mooy dëgg bu wér shout out to every Banjulian comme soo bàyyi lu tax ñu wax loolu um, in history soo bàyyi xel ñun bu ñoo nekk ndaw lii leen gëm ñun dañ Banjul dañ believe loo xamante ne comme like supportante to support each other you understand ñun dañ ñëw fekk elders yi mag di ko def soo ñun tamit foog naa ñu doon indi ndaw soo foog naa dañ ñëw pour roy seen tànk di ko def soo bàyyi xel Banjul ba si zonals football understand nga ba si lu mel nii soo bàyyi xel musique si boppam Banjul la dooree jamono yooyu xëy na dëgg la rek léegi la rek génération di dem boo ñu ngi try pour isiwaat things back waaye everything fii la dooree so understand nga so Banjul Samba Banjul Kumba Banjul bi yëpp lu ko waral rek mooy oneness bi la rek ku xam Banjul rek xam ne oneness lañ ko xamee bennoo bi jàppoo bi yërmande bi soo moo nekk Banjul rek soo lii Kumba Banjul Samba Banjul te ñu ngi ñaan yal na fi sax dàq yaa yal na fi sax yéen a ko xam de yéen a ko ko de moo ko wax ah waa ba mm-hmm. Euh, ñu ne yenn euh, waa Banjul benn artiste dama fi artiste yu dem ñi yëpp waa Kombo lañ Massi ST yi Kombo la mhm. mu ngi toj fu nekkat toj Kombo dem UK recently ñëpp si ak award artist of the year mhm. euh, mu indi award moo fa toj Banjul amul benn artiste bi nga xamante ne dafa toj artiste yu toj yëpp Kombo lañ dëkk seen yéen artiste yi Banjul da ngeen fiire ñi nga xamante ne ñooy artiste yi Kombo moo tax yéen ngeen koy def loo mën a tontu nit ñi waaw affaire yi moom ku nekk da am tool di béy rek you understand moo tax ma wax la ko since starting affaire yi Banjul la woon so understand nga Banjul la woon dégg la shout out to ST suñu brother la si game bi um, di ñaan yàlla um, gam face up xam something face up talent bu mu win award bi yal na ko jég bon di la wax ne Banjul tamit ñu ngee ñëw anyway nañu gars yi suuraale because of ñu ngee ñëw with full force ñoo ko moom te dem pare pour dem jëliwaat leen moom dañ nekk di fight pour jëli leen moom because affaire yëpp fi la doore dégg la rek léegi la gars doo door rek ku nekk di ut fu mu la nga bon xam ne ne affaire yi yëpp Banjul la woon so ñun tamit ñu ngi struggle pour jëli leen moom understand nga it's work back home so lii mooy the thing so anyway nañu gars yi considéré nañu gars yi di sóoraale xam ne daal ñun si biir ñu waat neen te dañ ñëw pour dekkil gam music dañ ñëw pour dekkil Banjul music affaire yi soo gisee sax Banjul music bi mu gën a dilee mooy lan because of soo bàyyi xel like am um, things si mënut a dem ba tey mu gën a dilee mooy soo déggee music si boppam capital nga den ñu kaa mention nañ jël ah, exemple si nébo si Sénégal da ngaa ne Dakar nga ñëw Mali Bamako so artistes yi yëpp seen boppa den dee capital bi moo dee si everything foofu la rapport bi yëpp dee foofu moo dee waral foofu mooy everything so doo mën a toog nga ne gam musique bi dégguloo Banjul soo loolu ta affaire yi gën a dile soo ñun dañ ñëw pour dekkilaat gam musique bi isi laat ko isi yeneen bagage si biir musique bi soo yaa understand soo lii la ñëw pour def soo nañu gaay na nañu gaay sóoraale lin moom moom la ñoo jël si soo lii mooy da ting kon si da leen gars yi euh, ñu déggal nga ne yaa ngi bokk si li nga xamante ne mooy Jolof Arts that is that euh, record label boobu mm-hmm. noonu mm-hmm. ñu bëggoon nga wax ñu bi ngay dugg si Jolof Arts record label euh, ban contrat nga sign ak gars yi ban deal nga sign ak li nga xam ne mooy Jolof Arts waaw Jolof Arts di label ñu ngi sign ak gars yi contrat boo xamante ne like um, three years contract la um, gars yi dañoo produce um, seen album so ba pare seen contract bi li fa nekk mooy sixty forty Um, so dama xamul anything like loo bëggoon xam another thing regarding to the label so li am pour label bi li ñu sign ñoom mooy album so within the three years. so how far how far. with the album bi nga xamante ne moom ngeen sign ak ñi nga xam ne ñooy Jollof Arts. waaw music am um, procédures yaa ngi daw because soo bàyyi xel like bu ñëwee si label bi ba tey couple of songs suñ jot am moom la ñëw show Atlantique. and then ñu gis ne people bi apprécié nañ ko parce que soo bàyyi xel couple of songs lañ am label bi understand nga so right na depuis bu ñu signé foog naa less than songs one video so di make wave moo a moo occupy Atlantic so toj Atlantic so ñu ngi war a expect ne foofu yow la next two years to come so album bi su ñu ko waree toog war a yëkka album bi ni moo war a mel so li may da bi xanaa ñaan yàlla Gambia yëpp jàppa si ñaanal ñu waaw ñu seetlu si kanam daal waaw di wax everybody comme noo ko waxee la rek waaw from Banjul to Koyena di leen ne Allied Movement la is your boy Chipay bu Allied Movement maa nga jobaa ak suma boroora moo xam naa mu si biir dafa xala bisi sóora ji foofu waaw di leen ne am um, ñun ay ndaw leen juddoo Banjul nekk Banjul di ndongo Banjul soo di rap gam music bi you understand pare pour dekk la gam music bi soo di wax everybody every Gambian nañu gaay sóoraale ñun si biir game bi ñu ngee ñëw di soo waaye anyway bés bu ñëw ñëw yëpp seen kaw ñep suñ kaw ah, duma la bay nga dem en tant que artiste fo nga defal ma acapella bo len mako ci li nga xamantene moy Gambian Talents TV Ya. nañ it could be nice wara japo benno defal lu la war baña indi nono. xamal lu la war may indi dego. mbele mbele mbele day indi xajaw ayo Gambia watch out everybody you know what i mean di ñaan yàlla ñaan na jàmm ji sax Gambia shout out to everybody in the building di leen tonight at Atlantic Hotel mu ngi wàcce si souf so we in the building elite Ah, benn téere mbokk yi ñu fàttali leen yéen a ngi seetaan Gambian Talents eh, TV ñu nekkal leen fii nga xamante ne mooy Atlantic Hotel buñ ne Atlantic Hotel rek sa xel bi dem fii nga xamante ne mooy Banjul guddi bi nag guddi waa Banjul la waa Banjul ñoo am concert organise ko fii nga xamante ne mooy waa ba bi biir Banjul eh, ñu amee ko fii nga xamante ne mooy Atlantic Hotel artistes yu bëri ñëw dajee fii nii Timi football bi nga xamantene ñoom dañu célébrer sen anniversaire tay ñoom ñu ngi fi ni ku na mu sol sol ñëwal fi tay artiste bo na mu tay ñu ngi fi ni nga leen fi fekk ñu dox dajé ñi nga xamantene ma sha allah dañuy bëgg Gambia xalé yi jog dugg si art bi euh, dugg ci li nga xamantene moy music industry bi ñoom tamé ñu wone li nga xamantene mom lañu am mota bu ñëwé bir bañul mbégte ak contenté rek dalal ñi nga xamantene ñoy la taxawal ndax fay nice trop euh, nga dox tassé ñi nga xamantene ñoo ñu nga wara tassel da nga leen dimbalé ñu mëna ag fuñ wara ag fi def dal dalal leen salaam. is mi ñang booy. aka rakku Mike. yee. dégguma sa tur bi. artiste tànga booy na góoree. <laughs> man la ñang booy. aka rakku Mike nga jox ma microphone ma naaw moom du ma sax laaf. is mi. waay waay waay ñoo ko déggandoor bàyyi ma toon buroo tur man la Malick noonu as leen léegi xam nga jógee Ahlu City capital Mike Power da sama manager Assane taxaw fii nii soo ñu ngeen nuyu all Gambian music artist di nuyu alati ko del wa man dama taxaw artiste nga xamantene boys lañ ma nek jigen nek seen digante ñuy slagal di jaay sedd yeen da ngeen bëgg mëna yeen ñu bif da ngeen bëgg bif eh dañu bëgg suma leen bifé du baax no, su lé suma leen naré wén du baax dé <laughs> ñu dem ha ah. eh. duma leen bay da na leen bay ngeen nuyu nuyu artiste ngeen woné ñi sétane ñi yeen banta ngeen ñëwé eh. ñoom ñu xamné yeen ci ban côté ngeen ay yëngatu aywa ni ma njëkkee si yow. yee ñang booy la yee nga jox ma microphone ma naaw moom du ma sax laaf microphone bi ñun la xeewal ba bu ñu xeewal soo ñu joxee microphone dañuy naaw moom te duñu sax laaf hey rap yëpp moom lañ caabi ñi dagg seen i baat ñun la ñun la ñoo fi xew te ñoo fi man kon ñoo fi caat ñoo ngi si biir ñoo ngi si biti ñoo ngi si tuuf te ñoo ngi si kaw ñoo ngi si fii ñoo ngi fee kon wax ji sew ji feguñ ko ñang booy la ñang boy la dégg nga ko ku jokku ne nekk rappa lu tax nga tànn nekk rappa nga gis music yu nekk Gambia am mbalax artist am afro manding am af am all types of music yow nga jóg rek nga ne I am getting into uh, rap lu waral lool. yee rap dafa nekk suma bëgg-bëgg dama ko yàgg bëgg waaw ba may xale dama ko daa foyee eh, dama day gis artistes yi ñuy pofam mu neex ma ma bëgg doon sama bëgg-bëgg ma tànn ne rap laa bëgg nekk yee eh, mbalax am na yëpp am na mais dama choose Eh, mom moy sama bëgg-bëgg dal té mom la tamu té moy yoon bi nga xamante fi lañu mëna démé waaw fi la gëm né dal dama dem da ci rap yé eh, ba paré dañ ko gëm. dañ ko gëm eh. since kañ nga commencé de rap. 2016 euh, la commencé di gëd di ko di ko rek waaw mais 2015 la commencé comme ti tay mic di rabantu. yow foo jógee si biir Gambie yow because yow ni ngay waxee nii dafa mel ni moom dafa sàcc dugg Gambia soo dig ñu wax ban côté nga jógee Gambia. non sàcc ma jógee Gambia sax maa ngi caamin afta soo génnee soo génnee fii dama dama yoroo Sénégal nag mais fii mooy suma life parce que fii laa defee life yëpp Sénégal laa yor laa juddoo nag mais fii la sama life yëpp fii la fii laa xam te fii laay tiitaroo daal. dégg ko Sénégal ak ñu neex làmmeñ maa leen xam buñ la rawé su lu nek mën nañ la sé raw nga dab len ba dess ay lamène sa yu la Sénégal rawé rawé si ay wax bul daw ndax doko dab dégg ko num ko waxé nak jëm ñoo mbalax ni rek dugg génn fi ni sa yu commencé tekki ba taxaw gaay roñ ko ndank delloo ko bay ñu ñu wayadi wala do ñu def lolu non duma len def lolu man fi la am tay suma liggé yé sama bro la asan mo suma lepp sama manager yé mo suñ lepp dal suñ gannaam lañ nekk tete nañu bañ nekk ni moo tax ñu don luñ don ni dal gëm-gëm la du ma mos a deew wala leneen fii laa am daal fi ta fii laa tirloo sax suma sañoo sañoon damay nekk fii king bi quoi. da ngay nekk fii king duñ ko nangu. waa Thiamène du ñu ñëw fii nekk ay king te fekk waa Kébécounda Kébé Kébé nekk fii nii yow duñ ko nangu waa nangu Kébé duñ ko nangu eh, ñu bëggoon nga wax ñu yowet kañ nga dugg si ay woy ak ban façon ngi woy ngay def. waaw musique moom dafa nekk loo xam ne comme genre hits la rek daf te waale man nag ci affaire yi waale laa dugg dëgg la nag maa amee kuro bu tuda ahlu siri pour say momo dugal ci ram nak to be honest parce que dafa fekkane ñoo bokk ben place bu ñoo liggéey xam nga so ma gis num dé démé parce que man dama yag comme time bobu dama yàgg dugg affaire music so su music dé taw rek dama dé comme wuy bu taw rek dama dé jël rek ma capté ko fort fort xam nga so say afta ma gis nu mo dundé ñu bokk ben place bu ñoy jëw ma gis nu mo dundé affaire amel ko ah man tam dama wadi bina taxi de mi ma wa aja yaay bañ afta ñu commencé di bina bina bina bon luñ moom lu mu yàgg a rap yëpp lu mu yàgg a dund yëpp suñ force song maa moom ñoo ko def. waaw suñ force song soo yaa yàgguñ nag si game bi nag ñu ñu door 2000 maset 18 bii nii bon balaa 2018 2019 ñu ngi génnee song si bëri démb rek release nañ benn song mu ngi tudd waxkat yi attaque ak Big Faa ñoo ko moom. soo xam nga ne loolu loolu mu um dee ginaar tifo la. Um yéen da ngeen garaaw de ay xale jóg nga nekk rapport leer na ma ne caameen nga dégg jóge yow it. voilà non man maa maa ngi juróo fii nga fi jaral laaj. mooy nandite bi <laughs> moom mooy waa Banjul kii mu jógee caameen di jaay waa waa kebe kebe yi nandite yaa ñëw fii. jaarale ko ci wa Banjul bi rek pour ñu Gambia nice ko luñ ko def buñ ko nangu buñ paré dinañ la dépôt delloo la fi <laughs> fi nga joggé loolu duñ ko mësa nangu fi ah mu nga né mo la influence mu nekk li nga xamantene ñu ni ne ndor day walé ngeen dëkk bi ngeen dem bi nga xamantene mu wal la ngay def li nga xamantene moy rap lan mo tax nga dugg ci ay rap. lutax bu mu la waxé né nañ rap waxuloo ko dédé nañ ko bolé ak li ak lale wa parce que man dama gis ne comme affaire yu music dama ko yagal laaj xam nga so comme luma la wax rek musique bu taw rek dama ko dee teel a capture musique bu taw rek dama ko dee teel a capture pour soo gisee ma jël si ramba jëluma si ay mbalax yi nii man affaire mbala yi mbalax musuma ne affaire yi yëngal ay yëngal yi góor sax du yëngal gis nga yow yow góor yow góor bu waree yëngal loolu loolu loo ko war a non man man loolu I don't have a problem ku nekk ak area buñ la yàlla may mu nekk talent bi nga xamante ne yàlla may la la ko su dee yow tamit foofu nga bëgg a teekee yàlla daf la ne fii ngay teekee dafa fa naa ne foofu ngay teekee da pare yéen da ngeen dëgër fit <laughs> jóg rek di bif ñi nga xamante ne ñooy seen mag balaa ñoo sori may leen ma si baasi ñaari woy bu ngeen bif noonu may leen ñu baas ma attaque bi nga ne doo dee wax a xaj sa kanam di ma saf ni xaj bu sol taj da jos door rek bugg a ku la aj mun ngaa sata man maa laa raj lii lig la may laaj bi ci géem bi bala ngaa béf nit nanga ko waaj isi yoolu bawol ak lu séti rabte duñu kuti suñuy flow moo lay fuuti ñoo ko déggandoor ah Hussein Dodo ak Dada gaay dañ fële si naan su fii su fi golo amee tur ñun ñoo ko sarax ah attaque fulee fale mu ne lan ah, ñun ñoo ko tey nga ne ma nga ne ma nga ne ma ñoko tey ma la neex mom ñomit ñu fele si ñu ne ñooñu la ñuy tontu neke nekk ki nga xamantene ku dëgër fitna sa yoko ko kobasee mu feyeku <laughs> ngeen la laalaate yeen ñi da ngeen pare ngeen nak lan mo leen duggal xir si def li ngeen def genné way bobu di bif ki nga xamantene ne mooy waaw parce que ñun nañ gis ne comme like soko ko soko soo ko Hussein ak Chanta xam nga attaque daf leen yaga classe parce que so sété sax so attaque si loolu la ko nit ñi xamee xam nga si xëy na ak canta ci ñooñu la ko nit ñi xamee so daf leen yàggaa classe dafa yàggaa génnee songs nangu ñoo tontu so which means ne comme benn song sañ génnee parce que am na ab benn cuune attaque bu ma déglu xam nga rapport laa ko moom ba dama dee déglu som cuune xam nga mu ngi wax ne ah, reply bi yëpp ñoo nekk one track xam nga so ñoom war na ñoo rusu loolu sax nit di leen tontu di leen biif so xam nga gars yi mënuñoo tontu soo moo tax ñu jël tes boobu noonu xam nga pour ñëw wax a gars yi parce que ñoom ñaar ñoo nekk Big Faa dafa nekk si game di jaay réew mi bu rëy te wóoyu deful dara kenn xamul moo tax attaque dafa nekk di jaay ne moom mooy king parce que maa ngi seetaan benn vidéo mu ngi doon wax ne moom next next monsieur tuuti tuuti artiste bu bugg a moom na koo fay xaalis bu bëri soo xam nga ne kooku dafa bëri wax moo tax ñu jël am nga. <laughs> dafa bëri ku nekk da ngay aim high bëgg a ñu fekk si la foofu noonu ku nekk ku ne ah, olof Ndiaye nee na mu ne wàcc daanoo ci gën a gaaw <laughs> so da ngay egg fu kowe biig fa woy fi li nga xamante ne ñu bëri dañ koo ragaloon fii artiste rek a ko def mu ñëw fii nii ne anything anything pay fight si jàkka mu wax ko fii a ah, gis nañ bom sa góor jigéen ah gis nañ fi ah, lu nekkee ah drug squad di jaay drogue loolu yëpp mu wax ko fi yéen ngeen fula si rek ngeen ne big fa mi nga xamante ne yàgg na si aar bi di yëngatu ji def ay bagaasam yéen moom ngeen ay tontu ba pare luma gëna gën a jaaxal yéen Hussein ak attaque ñoo ñoo am problème ñoom do ak Dada am problème ak attaque ñu wax Hussein tontu nañ yeen gënen yeen yene gëna gën ñoo tontu yene gëna xomb safara bi bu gëna taka lu waral lolu yeen yeen da ngeen dëgër fi de. gem bi ñoo fi gëna ndaw. Mm-hmm. mais wallahi ñoo koy pëndal. Mm-hmm. mënu ñu ci ñom wata ma ñëw ne Big fa bro sa wax jey bëri mbeñ mbeñ mbeñ boy kèn ngay tëri sa son day télo xel wax jëy bëri yeah. dañoo nekk ak seen nag nekk xale bu ndaw ba pare dañoo nekk si yoon waaw wax jay përi rek mais ñi ngi si yoon dañuy dem loolu lañ gëm quoi. dañuy dem ñoom de ñoo jóg laal ki nga xamante ne mooy Big Faa ak Attack Attack woy bi nga xamante ne mu ne Friday mbaxalu rappa Saturday cuy rappa Sunday benn ci <laughs> yàppi rappa ba pare ay rappa yu ndaw ñu jóg ees ñëw rek ñoom ñu ne ñoom it dañoo classé gars yi ah, tey guddi bi ngeen ñëw Atlantique ñu buggoon a xam yéen lan ngeen naral tey lan ngeen nar a def fii si Atlantique li nga xamante ne benn artiste dafa gu ko doo leen nar waaw xam nga bis bi moo nekk sin force de dañoo war a ñëw pëndal war a ñëw wan ñun luñ doon waaw bis bi daf ñu jaralu nekk waaw soo di bëggee Jolofaat yoo nekk fii. xam nga ñun artistes yi ndaw leen ñoo ñuy puus xam nga tey fii ñu ñëw ñi ñu bëgg suñu broda Assane Eh, normal bro bu baax la moo ñuy teete bañ em ni ñu em eh, ku bëgg artiste boo nekkee si yoon waaw du la bàyyi xam nga saa su nekk mu ngi lay xelal lu baax dañ koy bëggee daal feet bu ñu asee ñu asi ak moom la moom mi la waaw bis bi daal daf ñu jaral suñ yéegee ba wàcc waaw ñëpp danañ wax ne booy ñu ngi si yoon te naa ne ñu si yoon. booy ñu ngi ci yoon te gëm ne ñu ngi ci yoon mais dañoo fi nga xamante muy loolu waaye yàlla baax na dama leen ay wax rek pare leen ay tontu paralen ay defante paralen ay sanne wante yu ken xamul ay bulo ak yu ken xamul bala ngeen ay tàggatoo rek bëggoon nga defaral ñu ben acapella bu ndaw en tant que artiste yu eh, ñu leen lay ñaanal yoon bi nak yombul eh, dafa bari ay upside down eh, bëri yi nga xamantene ay tolof tolof la bëri yooyu ak yoyu way yow yay fas jom rek xamne ma li moma taxa ma damay dem Gambia mom man believe naa amna talent te Gambia gum naa Gambian music dina dem bi nga xamantene am nañ fi Akhlou Brick man luma gëna metti lu tax ngeen jël Brick boo dafa dafa simila simila na ahlu city ahlu brick am nga lan may def France am nga am nga amul benn différence city ñoom la ñun ñoo ko moom quoi yow jógewuloo city yow caamen nga jóge moom <laughs> mooy xale e city mooy seen capital am nga ahlu dama nekk loo xam ne comme zaar yi la nga ëmb ñëpp rek so which means ne ko mun nañoo tëree suñ boobu ne ahlu ñoo umba ah city bi yëpp daal yéen ëmb city bi sant yàlla bàññul ngeen ëmb aca <laughs> tàggatu leen ak benn rap benn acapella rek ñu dem diga get diga nga naw comme dund kiis ñoo job ci ndi son comme kele is ñoo la mon juru ngay tit ñoo mon mën ñun ñooy rey seen piit ni ngay sa suuf ma saf gumba dégguñ sa son li nga wax dégguñu ni ngay ci kaw di ma saf ay gone si rim dafa tilim bo ñoo koy bale wax ci bëri mais ken duñu kale ñang booy la akhlu sidi ken du leen la laalati ngeen ben la ki nga xamante ne mooy Ali Baba Kila Is kebatu ngeen be ko ci kooku lekk naan ay bind rek lay def tàggatool man ku ma rek mom na bi attaque neel sa daat mang sa kaw toog sa kaw pare ñëw saw sa kaw déglu flow mu ñëw taw sa kaw cop sa fit déglu liidu siit force round la doo gis kenn mu ciit ceeg dis man maay lig dëkking sama xam déglul samba siñ bul xiit kos ma la neex ñëpp góor nga ngaamaa saf ni ñu jëm sa ndóo bi ni musta sey hey cey yow mi dañ la jay xam nga lu tax ñi ñu ñëw fële si laal attaque laal ki nga xam ne mooy Big Faa ak Killa Ace bugg a siiwa ko asalaamaaleykum walaikum salam sentele badon kole eh. ya atulo be nyaadi inteke fore nege itekera mina papu gang bena sike nege mina gambi kono yang ambe sanfe gambi tombe ite sega nega mina papu gang bena nege sanfe sanfe ite sega nega mina cmp be sanfɛ nege zude ite sega minɛ papu gang gambi kono yan ande be sanfɛ nege zude ite sega minɛ bambara sosere bambara xar na caar Banjul toj na te demaguñu fen Atlantique Hotel mu ngi yëngatu instant yii nii yow yow yow <laughs> lu la dugal si ay woy ye nte nde dunta na comme donglo diyata nte e woluti nan dunta donglo la nga donglo la wolo beta taade nga donglo muta comme sidigi jabate e man comme iba wan ntega nte malie la nu nga rapport ke quoi e man comme sidiki jabate ka donglo lam ne bebe ka sidiki jabate lo nte ka wala rapo la ode diata nte e man fo joge si gambe man mali la joge yeah comme gambi diata yeah ima e don gambi kadi ni mota gambi la ni manna gambe ima e mo gambi kadi yeah ana gambi obe sikaw ma comme la c'est lo nar gudi bi tey atlantique nga jog es nek rapa bu jog es nek rapport bambara di lak bambara mu nek lu jafé ci bir gambia mu na am amna way waaye wut lan nga nar lan nga nar woné fi tay ah comme fi programme ndou le mol bi jeng programme la jang ya eh, jolof art tolu be bi jang ko organiso ya eh, nga max na manager maxwell lem ya o le tɛna n ka maxwell o le na dongilo la ɲe n ka dongilo manajɛ yeah, comme dongilo diyata n je de maxwell a ye muta baa ka baa kɛ man o le tɛna ma o le ka rapport kɛ san yeah. tey guddi bi du nar naru njàmm tey biir Banjul naru njàmm am nañ fi ba am rapport yi bambara tey ñu xaar ñu xool ba rapport yi njaago ak rapport yi saraxule loolu rek fi des <laughs> dëkk bi xaar ñaar nu ko gaay waxee noonu lay demee euh, jërëjëf ah. ana Banjul Banjul yee yaay defati ngeen ndam ne ana waa Banjul waa Banjul dañ def ndam ku juddoo Banjul yaroo Banjul xam nga ne ndam rek Ibrahima Faye Souleymane Sow a ngi ziar da ngeen xiif xaaral maaw jox ma bi 지역 people how many money you worry? I have this. Tell you my jolly, my first and first thing that you're calling. Ah! Mali bari chas chas bari chas sab many cunning. Raga my two stuff so two stuff you mami bunny. Alright, you for them it. My yes you ain't getting corner corner. Hey, nema hane kus na lecha hane mana muma dara. Ah! Bali la song, sama kalbi da fay nachi ni dere. Man duma call, my njige si oto my si المحلات ابو الجو بس ما سما جيم وريك الدو صراعي ما دام انا رام ولا جف بين الريك دين الدو كين دي تاني ما يكو ساكو ريليكسي تشو ساكو ما يكو وفوضي سادين انا جيب ساكو دوانا وراك بيك سمكو وهامو ما حمالا دوغا لا جاك الله حمالا ما كلا بوما لا يتومو فيك بوبي ياكنا كمانا مستحولا للمدى Udai madoli, udai wa mare madoli, udai madoli. Utoi wa mare matoli Utoi matoli Hata niga leku man mai ko Utoi matoli Kusafu masari kwa tuki ko Utoi matoli Bad you Utoi wa mare matoli Bad you Utoi matoli Utoi wa mare matoli Utoi matoli Hata niga leku man mai ko Utoi matoli Kusafu masari kwa tuki ko Nie wymięta dygory łok, ale ten pobogasz to nie nie patrz Zaraz idę tu na rabory łok, my nie czaku, to mówię nie gaz Malenda, rap, czy szary, jak dam to łap Ty mnie rapas, kurwa, ty podaję pola na tana, to tak Malabari, kuj, ty mnie rapas, ty malę, ty na shit Bitches, I'm Solo noch mal Freestyle. Digga, man kennt nur mal Kuchen. me money, get einen Zacker. Melon got the flow. Melon got the show. Money over high. From the morning show. Money shot in the palella. They don't want to make my party jolly. Man, I uh. get a dawn. Man, if you I don't want to find you some galera. Body full of fire, see, come beat my tech, techno cool. Who fit the hot tongue, swing is back down by. Yeah, <laughs> enjoy my darling. Enjoy my darling. Yeah. Mtoi matoli Mtoi kwa mbale matoli Mtoi matoli Habla niga liku man mai horom Mtoi matoli Kusaku masani for tuti horom Mtoi matoli Mtoi kwa mbale matoli Okay This is another one Yo I'm the queen, I'm the real queen. Body queen. I'm the queen, I'm the bad queen. Body queen. I'm the queen, I'm the slave queen. You can ask rappers like me. Bobby Queen. I'm the queen. I'm the real queen. Bobby Queen. I'm the queen. I'm the bad queen. Bobby Queen. I'm the queen. I'm the slave queen. Yeah. I am yeah. queen. Yeah. Rappers yeah. like me. Wołanie poczojne, sama habije bojna Siłatę nie dorojna, chyba gina cynojna Nańcza habal, banga nie wujaj dojna Malim gina dzenizdać, bandziul bakojna We like a kite, bari fula kfajna Daran go twój stel, jak chwilę poczam Ja moje wunie w tym fignie babili mansa Nie babili moje to takie lemon, ale nonsa Tani jona puma, let's be the best Bele, bele, chola, one hale dimo, We best Nyole ma janga, lecę babi, to for death my lips and kiss. When we call it, I'm swooning the chest. I'm the queen, I'm the real queen. Bobby Queen. I'm the queen, I'm the bad queen. Bobby Queen. I'm the queen, I'm the slave queen. You can ask me king, yeah, the Bible's not queen. I'm the queen, I'm the real queen. Bobby Queen. I'm the queen, I'm the bad queen. Bobby Queen. I'm the queen, I'm the slave queen. You can ask me king, yeah, the Bible's not queen. Your love. No way, kissing, kissing, no way, kissing, kissing, no way black card cold to the cold to the cold, cold to the I show how to network. Fucking net, you can chill. What's your net, net, net worth? Uh, feeling myself. Been flip up, feeling myself. Yo, they need rappers like me. No, they need rappers like me. I'm the queen, I'm the real queen. I'm the queen, I'm the bad queen. I'm the queen. the queen, I'm the real queen. Bobby queen. I'm the queen, I'm the bad queen. Bobby queen. I'm the queen, I'm the slave queen. You can ask anything and you rappers like me, yo. Money get the stuff, you give me my do my crap. Did I chop up and holy let me get the stuff? Money know I come along, did I'm hot attack. Me rock up with David like you man does what he I'm a rich man, pen like marijuana. I'm a city girl, nigga, do my fun. Hanga do my gun, I can give it on my tongue, I can it on my said we need Nelly I'm like water Man the way so they do not too tight Cheer, cheer, cheer, cheer Lana gina mute ma kujana Sama papa Nongo banyu la Muna ma jai tegel papa It's a member yedelko yote yalata yedelko yedelko yedelko yedelko te yalata yedelko yedelko yadu yapi yadu yawo yadu yekero yadu yabe yadu yawo yadu kero they get stuck on one on the road. No good be right, no way you do now. So sounds singing your love has number one man, me. I'm the one. So the singing, promotion, number one man. boy sax na waa Banjul daal yow Banjul loo gën a sax Banjul loo Jabariá. bañ a gis la doomi julit mënoo firi benn baati xadis dematoo cooj bible bi sax léegi duy neex a gis fi ñoo jëm xam naa ko fi ñoo mujjee moo ma mu mënoo liggéeyal àddina ba àllaaxira fay la yàlla daf la yéex a jox nga ñaan iblis mu may la firim ba ka no naw aduna ñepp jey la fatte de démb fat si li nga liggéey yépp pour tay la mbokk kër yee gën soxor sax si biti léegi sàmm alaar ba si biti bari si niti léegi ba lañ la defara rek nga ñaaka pour a joko ni nga def ci tejam lu tax joxuloo ko ko mu fa joko so amul xaalis dekk suuf nga do fi sampataax fi ñoo jaamoo yalla sax do fa am place bu baax enveloppe bu rëy bi ngir wax si rakaay toog fu nooy bi ma bi nga dama jooy yëg-yëg la sama xol a tooy nga ne am nga ñaari bënte mel ni gumboo bantaam addinaa dox ba tey te kenn gisul tànkaam yàlla yàgg la may te dégg gu mi sa yaaya gi na te nga jël sa papa santaam jam fa yàgg ko depuis boo juddoo Neka jam di alali buur bi nga bëgg mbubu Mister eso di nga dé xana danga ko faté ndax problème bo féké wut na koy mun a àttee nga soga mëna gis lu tax nga jiddu rek joy fi borom sareet bi mo gën borom moto tebu toy so waré ñak ba dé waxal yalla reey la légui nit ñak ale la ñak ci ra em si jamono léegi jël rakate ko ci kaw mak mu ngi kër yu bari xaalis bu bari lañu gëna fonkani sa at yu bari su fekkee eene nekk la fii kenn du fanaan tu baax ndax li ko eene lim la eene wax ma lu si baax gis naa ñuy xëccoo naan àddina fii nii nga ko fekk waaye mosoo gis kuy xëccoo àllaaxira nga ko fekk soxorante i ñaanante jolli suñu biir ñàkk a bokk benn làkk jar na xol bu fiir faytal sa làkk te mosoo jóg kuy xeexal sa diine dina gën a métti dinañ ko réccu su ko fi xale yi muy nii. ñu ngi nekkoon on a présent waaw sant yàlla si buñ ko bi yan expectation bi lan la next year. waaw loolu moom next ah, next year loolu moom dañoo naan yàlla moom ñu gën a ski si sa first division bi nga xam ne su ñëwaatee following year bi mu dañu a comme ni ko defee tax si boobu dinañ dem pour bu ñu laa jaajëfal. fu nekk la du school team du nawetaan ngoyaan du Gambia Authority wér na fa trophy bu nekk nekk African champion under 17 2009. Play under 20, play under 23, play senior squad. Categories yëpp la play te dafa def ndaw. bu ko bu ko waa Banjul soxlee fekk mu si diggi dooleem mu ne Banjul la ma ñor dama bàyyi man suma buga buga def lu waa Banjul buga mu bàyyi coaching ñëw jël team bi moo team bi ñeneenti at ba tey team bi yàlla may ko Union Force Division. Good evening, the Mabrangan Tatu Boy, special. Pokane, gor rek mun lii gor moo war a mun a bàyyi lu mu bugga pour defal réewam ak askanam lu mu bugga and Boya is brilliant example pour xale yéen ñëpp képp ku si bugga nekk footballer play the highest level Boya doy na la exemple doy na la si dal doy na la si tey doy na la si mandu doy na la si jox respect ma jox respect xale yi Adansa. So sax soo gisee ma teg ko dama bugg di aspire pour nekk football la ngeen si live bu boya di live with his age xale bu fi àndal tey si training mo la raw soo leen duggee si fil bi lu mun a def doo leen ko def so moo tax ma teg ko fii njëkka pour wax lii pour mu doo leen seede booya beneen yoon congratulations wax nañu bari extensively interview ak Capital FM waaye tey si kanam